Mm, salaamaaleykum wa rahmatullah kon xam naa ne ñu maase rek teewlu bu ko defee nax eh, ñu ngi fas yéene jox kàddu gi nga xam ne nag moo waral jotaay bi wax dëgg yàlla muy docteur Balla Mbacké Mboup di bàyyi ci ñenn ñi di grand frère ci ñenn ñi di nijaay ci ñenn ñi ñun ñëpp di njabootam macha allah bokk fi daje docteur bis bi teew woon nañ ko daaw célébré ko ensemble en famille mu neexoon murite ñu fekke wat ko ren te ñaan yàlla fekk ko at yu bari yan kàddu ngeen nuyoo ñu soog a sóobu ci laaj yi. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu fi nekk ñëpp waaye di jéggi ñooñu di nuyu di ziar Cheikh Mountakha Bachir mi nga xam ne mooy suñu yaakaar di ñaan suñ borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool ba lépp lu mébét mu def ci lu kawe njortam di nuyu sama sëriñ sëñ Bassirou Mbacke Poroxaan mi nga xam ne tey li yàlla di def rek lu baax bu lu nar am day am firnde bi ñuy def lii doomam ju jigéen di taawam ñu fekkee bis bi di soxna yëmb ma loolu xam nga ak ak ak sant bu wër a wër la. alhamdulilah di sant bu baax nag ci li nga wax léegi ndax daaw defoon nañ ko fii lañ ko defee woon. Mm-hmm. Mm, fekkee ko ren. moom mm-hmm. nag sant mënu ko ëpp. ak yeneen sant yu bëri yoo xam ne daje nañ suñu bopp. Mm-hmm. te bi ci gën a rëy rek mooy doon gi ñu doon taalibe. moom sant mënu ko weesu. di ñaan nag suñu borom bàyyi ñu fi ñu yàgg koo féete ay ati at ñëpp kenn bañ koo manqué. yàgg lool ca at mu jot eh, ànd ak yokkute ci lépp rek ci wér ak ci koom ak ci lépp rek ci barke borom Tuuba am naa laaj bu njëkk bi sëñ Balla mooy eh, kilifa gu nekk li mu doon ñaan yàlla mooy ak njabootam nosu day am loo xam ne nit am na alal ju bari te réussiru ko nit am tur wu rëy te réussiru ko mooy saa boo joxoñee benn barab sa njaboot yëpp maase xool fa ci lu amul benn demi mesure wala arrière pensée loolu ban yëg-yëg nga ci am ci njaboot gi ni ñu la déggalee nekk ci sa ginnaaw looy ci sa kanam def la ngay kilifa ba nga yëg ko. noonu lañ ciy sant rek bu baax xam ne jagle la lu yàlla defal di defal nit la waaye nit mel na nu ne comme ni nga ko waxee te amu ko loolu moom sant yàlla la waaye sant it jur yi nga xam ne gannaaw yàlla gis nañ ne noonu lañ meloon sunu jur yu góor yeeg jigéen yëpp ci loolu lañ meloon euh, loolu seet gis nañ ko am na xëy na am na ci ñoom ñoo xam ne gis nañ ko ba topp ci loolu waaye loolu yëpp daal li ci mën a wax mooy chance la jagle la ku la ko yàlla defal nag da nga war a sant tey ñaan mu yokk te ñaan ñi nga xam ne ñoom nga boot ñoom ñëpp rek ñu yàgg bootu bootoo gannaaw ñoom ñëpp barkeel ma nga xam ne du ñu tëccu lenn ci toppante gi nga xam ne moom lañu ñu def ca giseeku ci sër kër Sëriñ Tuubaa yëpp rek sant yàlla rek mm-hmm. Mm-hmm. xam naa bu ma ko sañee damay rebondir ci li nga tontu wax ne est-ce que du nekkin woo xam ne nii da nga ko lebaloon yow say wajur ba tey say doom bu leen neexee bu leen naxaree nañ la ko fay ndax dafa am loo xam ne ko du yax bu rëy mais loo doon defal say wajur la rek suñ borom di la ko fay ala dañ koy nangu sa diggante ak say wajur loon ci mën a fàttali. sama diggante ak suñu wajur ndax xanaa suma ndey sax la ñu waxee suma bàyyi moom bi may tàmbalee barke am barke am teranga ci la ci la dem nga ne lu bëri kon jotuma ko defal ci nekkam waaye nag ma jàpp ne loolu yëpp mën nañ koo dabu ci ay ñaan moo tax fu ma toll ma ngi koy ñaanal ci ay kaamil yu ñuy wàcce ci kër gi ak di ko wàcce feneen ak di ko defal ca kaw la loolu moom euh, moom bëggoon naa mu fekke ko lool fekke sama njëriñ bu baax baax waaye loolu yàlla dogalu ko waaye su ma waajuru jigéen moom jot naa dund ak moom ba bi mu fi jógee yàggul indi naa ko ba fii Touba sax mu dëkk fee man bi mu fi jógee ñu dem yóbbu ko foofu ndax loolu la nekk ci dëkk dëkk bu mel ne Touba dund foo ba suñu yàlla suñu borom jël la nga denc ko fa loolu loolu cër bu rëy la waaye loolu yëpp nag sant yàlla la ak ñaan gu nangu rek ndax ñoom aussi sonnoon nañ ci njaboot lool sama ah, pa daana ñaanal njabootam ba benn sëriñ mas na ko wax ne defal ndànk sa njaboot yi kenn du ci torox ndax sa njaboot kenn du ci torox waaw ndax sàkku gu mu doon sàkku ñaan ci ñoom ñaan ñëpp baax rek te loolu yaakaar naa dal nañu ndax ñun ñëpp a barkeel alhamdulilah yàlla na gën a yokk waaye képp kuy njaboot ab faati mbuub rek amul kenn ku ci bon ñëpp baax ñëpp a baax loolu nag xam naa ay ñaanam la ñaan goo xam ne yàlla nangu na ko ñu ci sant yàlla bu baax di ko santaat bu baax di ñaanit suñu borom gën koo dolli leer waaye loolu moom moom dimbalu suñu borom la. Hmm. laaj bi mu doon laaj sànq sañ naa ci coxati ndax bu ma nee sa njaboot rek dama dugalaale soxna yi ak doom yi waaye nag damay def particularité ci soxna yi say soxna yan kàddu nga leen jëmale ndax. wax dëgg yàlla day bari loo xam su ko góor mënee rek daa fekk bàyyi na ay soxna yu baax yu yeewoo ci biir kër gi ñu ko ciy dimbali yan nga leen. waaw bala sama rakk yi hmm. xam nga wax nga léegi njaboot gu toppante hmm. ca bi nga tàmbalee jataay bi ci feexakoo bi wax loo xam ne kenn mënu cee jaaraat waaye li may kii ci moom rek bu ma ko doon tënk parce que wax na bàyyi laag doom laag yooyu yëpp waaye li ma ko mën a xamal daal li nga xam ne mooy étiquette bi nga xam ne mën nañ ko ko defal hmm. mooy sama Baye Fall la waaw ku xam Cheikh Ibra Fall nu mënoon ak sëriñ bi xam sama digg moom nu mu mel. waaw du du du du du du doom du dara ab Baye Fall ma Baye Fall boo xam ne lépp lu ma bëgg suba bu ngoon mi ngi ci nekk. te loolu it am naa tawféexu sama waa ñoo bokkal baay yëpp mel noonu ci man borom barki dem la fi jóge gis nga wax nga ko si nee na jaar nga kaw la gis nga ni ñu mel. waaw mu ngoog loolu moom moom it alhamdulilah lu yàlla def la. Hmm. am naa ci ñoom ñetti turandoo ci ñoom sama doomu baay loolu kon xam nga ne. Euh, cër bi jox nañ ma ko sama bàyyi liggéey na ci nag waaye euh, xam naa yàlla yàlla yàlla ko def rek ndax loolu yëpp ay jagle la rek jigéen ñi moom ñu ngi ciy wax du gàtt moom kër bu baaxee ñoom la bu bonee it moom ñoom la wax dëgg yàlla ku ñëw ba gis kër gi ni mel ak ni xale yi ñoom ñoo ko liggéey man damay xëy dem ñoom ñooy des ci kër gi ñooy defar ñooy jubbanti ñooy yar ñooy defar kon bu bu boo ñëwee fekk lépp jag rek ci ñoom la maa ngi leen di gën a santaat bu baax ñoom ñëpp tàmbale ko ci bintu bay mais xam na moom mooy mag ci kër gi ak ñëpp ñu fi ñu fi nekk ñu fi mas a nekk ndax jaboot gi am na ne fii am na ñu fi newul waaye ñoom ñëpp rek ci benn buum laa leen di nas ndax ñoom ñëpp la waaye moom mi nga xam ne moo jiitu ci jigéen ñi moom moo defar lépp ba keneen ku ñëw tegu ci lool gis loolu topp yi moom soxna bintu waaw di gërëm ñëpp rek maam jaar ak ñëpp rek jigéen ju baax moo yor kër gu baax bu kër baaxee jigéen la. kon ñoom loolu foofu laa yem ak ñoom. Mm-hmm. xam naa ci doomu bàyyi laa doon mujjee waaye yaa ngi ci doon ñëw xam naa nag laaj boo xam ne dama la ko dencal moom moom uh, loolu dama ko dama la koy bette waaye suñu Cheikh li nga wax ci moom léegi rek day mel ne ñaare ku koy seede ci nit day fekk boobu nga yaakaar ci moom mu defal la dara mm-hmm. kon day mel ne sa seede bi ci moom bi nga ne boo ko bëggee tënk mooy sa Baay Faal la loolu waxoo ko ci ay émotion wala ay mbégte wala loo yaakaar ci moom loolu la ci yow pas-pas boobu nag dafa mel nga am sa doomu baay yi ndax ànd na ma ak yow ni ma ko waxoon sànq ak seen Cheikh gis ñoom borom sa doomu baay yi xalaaxa bu dëgër boobu am seen biir ak bëggante boobu secret bi lan lañ ci mën a fàttaliwaat. waaw loolu kay du moom li ma la ci wax rek moom lu yàlla def la eh, donte suñu baay yi ji jiwoon nañ ko moom yar nañ ci loolu mag jiitu xale topp ci mag yërëm ko ne loolu moom yar nañu ci waaye nag bu bu amee it ndimbalu suñu borom la. waaw suñu borom bi dimbal ba ñun ñëpp ñu ma bokkal ndey ak ñu ma bokkal ñu ma bokkal bàyyi sax laa gën a laa laa gën a jubal ñu bokkal bàyyi teraanga bu nekk tafal nañ ko kon loolu moom sant dama ci sant rek ca xam ne yàllaa ñu ko moo ñu ko jagleel. fu jàll laaj bi sax dama naan au delà de ñi ñi sëñ waaye ba ci bekkaay ñeneen ñi. yeneen càllale yi sama ñi ma bokkal bàyyi ak ñi nga xam ne sama bàyyee bokk ñun ñëpp rek. bekkaay moom mu ngi tuddu yàgg na fay indi teraanga ñu ñëpp gis mm-hmm. Porokhane nag la may jëndal màggal Touba même chose ak yu bëri yu mu ci def yoo xam ne am na ci yoo xam ne sax du ma ko tudd ci ko ndax moom mi ma ko defal bëgg ko bëggul ko ko wax. macha allah kooku bàyyi lañ bokk. nga xam ne kon ñi ma bokkal ci sama bàyyi bokkal sax ñoo gën a ñoo gën a mën a liggéey ci man. kon loolu alhamdulilah tawfeex la rek. léegi avant dernière laaj bi mooy sa doom yi njaboot gi. léegi nag taaw bu jigéen muy soxna aw naan la boo ko tuddee rek. ñoom ñëpp da leen yóbbaale moom laa bëggoon a mujjee waaye moom laa waroon a njëkkee ndax lii eh, moog jigéen ñee ko togg dama jékki-jékki rek gis ko ci kër gi tey mooy indi ay xéewalam boole ci xaalis bu bari cee wax dëgg yàlla tey moment moo wax ma wax ci moom xale bu baax na bu yaru boo xam ne naka jekk dafa judd rek tegu ci yoon bu baax waaw bi muy jàng daa toppatoom jàngam eh, ba yàlla may ko ci ndam ba muy jàngit la ma doon jàngale doon jàng loolu kon xam nga ne mel na ne am na am na am na nag na sàkkuteef ci man ba mu koy defit ñam ko doon defal ñëpp xam nañ la était la était rangé correct yaru ku kuy kilifa mu jox la sa sa sa kilifteef ba pare it am taalibe waaw yëpp daje na ci moom sa maman est malade waaye mu moo nekk à son service ñu ko defal lépp loolu it xam nga yombul ci ci jamono ji waaye tey dafa bàyyi lépp ñëw féete koog man maa ngi koy ñaanal daal mu barkeel barke moom lépp ngi ci jëkkër ju baax ak njaboot ku barkeel lépp a ngi ci loolu daal moom dama koy def seere tey ñëpp dégg ko xale bu baax la bu ma bëgg bu bu bu ma loolu mu wax rek idool sama man man maa idoolam ci lépp loolu moo war moo waral tey ma nekk médecin moom mu jàng ba doon médecin ci loolu ci jigéen yombul ndax médecine jàng mi sori yàgg na métti na sacrifice lu bëri lay laaj waaye buñ ko waxee rek mu ne man médecin laa bëgg a loolu xam naa ne man mii ko jiite moo tax ma doon ko ñi ci des ñëpp nag maa ngi leen di gërëm doom moom ku ko amoon ku am doom boo sañoon ñu ñu mel na nga bëgg ndax doom rek la bàyyi di wax kii moom moom moom laa bëgg mu gën ma keneen ku dul doom sa doom bëggu mu gën la waaye sa doom nag yow boo sañoon da ngay ñaan mu gën la fa nga egg mu weesu ko waaw kon ñoom ñëpp ñoo la koy ñaanal mooy awa di taaw bu jigéen bi di basiru mi di taaw bu góor mi di xale yi yeneen ci topp yëpp ñu fi nekk ñu fi nekkul ñoom ñëpp ma sañoon ñu barkeel ba ëllëgee luñ bëgg def ci man wala seen njaboot ñu def ko suñu borom dimbale na ma nag ba alhamdulilah rabbil alamin waaye ñoom it maa ngi ñaan barke boobu ma am yàlla defal ma ko dama ciy sant it samay waajur ndax wax dëgg yàlla la ma mënoon ci topp leen ak topp seen ndigal jéem naa ci lu bari mm-hmm. waaw xam naa yëg lépp matul sax waaye jéem naa ci lu bari waaw ñoom it loolu laa leen digal rek ku mm-hmm. ci am sa sa waajur topp ko Euh, déglu ko waajur nag mooy mooy ki la jur waaye mooy ki la mag it mm-hmm. ñoo ñëpp ay waajur lañ ni Cheikh mi doone sama rak ba pare wëlbatiku def ma waajur mm-hmm. noonu la keneen war a toppee magam ba def ko waajur ah, bu ko defee rek mm-hmm. suñ borom mën naa ruus loolu ba barkeel la ci waaw kon maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp Moussa mi nga xam ne moom la àndal di doomu ndeyam it naka jëkk fu awa di ma sa dem ñooy ànd gaayen la gaayen gaayen laa ko def sax sama sëriñ la nag moo tax sëñ Moussa Naaw lañ ko tuddee waaye sama copain la boo xam damay kafanteeg moom ci loolu yëpp bu ma demee ci kër gi it na ma ca yaatu leeral loolu nag alhamdulilah waaw kàddu yi jëm ci personnel bi avant laaj laaj bi ma dencoon nag xam nga seen teewaay lépp la eh, moo day wax na fi léegi suñu diggante wax na dëgg kaw la lañ xamante boobu ba léegi nag xamante xam naa li sax mu gën a dëgër it mooy taalib gi rek bokk bokk bëgg sëñ Tuubaa te yàlla dafa maa dimbaleel ba personnel bi daanaka ñu fi nekk ñëpp ay maam Thierno ndeelam mi alhamdulilah ñoom maam Boussa alhamdulilah donc dafa dem ba nga xam ne lien de parenté sax moo am. waaw ñu am sama digg ñoom du ay question patron yu mel noonu mais lien de parenté am suma digg ñoom. loolu nag boo demee ba am ko ci sa cabinet da ngay sant yàlla bu baax xam ne sa gannaaw man ngaa. yaakaar ne dana rafet maa ngi ko yaakaar ñoom maa ngi koy gis boobu ba léegi maa ngi leen di sant bu baax di ñaan collaboration bi yàgg lool clinique bi noonu ko waxee rek dem ba mu doon ab modèle ci clinique yëpp mm. euh, bu ko defee ñëpp mën cee gis seen bopp muy yéen di man di njaboot nga xam ne yàlla it li may faraatu foofu laay ñëw di ko fa di leen ko jàppale mm-hmm. laaj bi ma dencoon bu ñu ko waxee sëñ Muntaxa day dugg ñëpp dañuy dugg mooy sëñ Balla lan la la sëñ Tuubaa defal ah lépp sëñ bi moom dafa lépp lépp lépp lépp rek laa la mën wax loolu moom loolu moom moom ma defal lépp rek waaw moom daal du ñu jóg di di ko sant eh, di ci profito sax nag di ndokkeel ñi fi toog ñëpp ndax ñu ngi jublu bés bu mag màggalu Touba. suba di sant bu njëkk tey di ñaar fukk ak juróom-ñett nga xam ne lu murit am rek foofu la ko amee. macha sëriñ bi. Mm-hmm. di ko ci sant di ko ci santle waaw lu ma sëñ mu taxaw woon rek maa ngi sant di santle waaw loolu daal moom mooy mooy mooy li ma la ci mën a moom defal lépp waaw gannaaw waajur yi nga xam ne ñoo ma meññ ba muy ba teg ma ci yoon bi ñu ci des moom moo def lépp alhamdulilah kàddu yi ngay soññee ci màggal gi comme jot dama mën ko su ma la sant bu njëkk waaw di ci woo ñëpp rek di wax ñëpp bokk yi daan dalal ak am di jàmm yeeg ñëpp rek eh, nañ ko doon defee rek ñu defee ko mm. te mu am ànd ak yokk saa su te te lépp luñ ci def nag ci sëriñ ci màggal gi ci jaamu yàlla ak bernde ak sant ak yëpp sëriñ bi nangul nu ko te fulal nu ko ci boole ko jullit yëpp ak borom Tuubaa ok nooy ñaanale sëñ Muntaxa ngir ñu tëjee ko yàgg fi lool ci wër rek moom moom bu fi yàggee rek moom muy muy ndamul muridi na fi yàgg lool ci wër ci lépp lu mu yéene ci yoon wi ñu ànd ko moom càmmam ci ndam